sunu ànd ak moom daanaka dafa wees woon ànd ak sëriñ ak taalibeem sëriñ Béthio doonoon na baay ci ñun doonoon na confident ci ñun doonoon na lépp ci ñun ndax lu tuuti lañ woon bi ñuy jébbalu ci moom ñii fi nekk ñii ñëpp xëy na ñii ña nga woon lycée ñii ña woon école primaire waaw mu ñuy tette ba def nu lii nu doon tey dara mus a gé sunu dara mus koo génn ba tax na waaw ñu ngi koy sant bu baax te fas yéene laltaay sunu ànd ak yéen ngor gi nga xamante ne moon war su suñu digg ak sëñ fas yéene laltaay sunu ànd ak yéen bañ leen na sonal ci leen ndax sëñ Béthio sonn na ci ñun coono goo xamante ni fii nu toll fi ngeen jëlee liggéey bi am na loo xamante ni waratu leen cee sonn ñun mel leen foofu lañ teg suñu tànk lépp loo xamante ni sëñ bi sonn na ko ci ñun ba def ko ci ñun ba ku ñu gis naaw ñu ku ñu kuñ ko séqal ñu xam ne ñii ñu ñu am ndimbal lañu ci taalu beeg ci lépp lu mënti doon loolu wax dëgg yàlla dafa war a doon capital boo xamante ni foofu ngeen war a tàmbalee ngir liggéey bi ngeen fu feneen fu ngeen ko mën a yóbbu ndax day soog a tàmbali nag sëñ Béthio gis nga li nit ñi gis nii nag yeeg bien matériel yeeg yooyu loolu mooy li gën a tuuti li mu def jël jëmmi doomu aadama defar ko ba mu mel nii mu mel loolu mooy li jafe te sëriñ bu dul ku doonul sëriñ bu matub sëriñ loolu doo ko mën te loolu nag la dimbali ñun te loolu la réussir ñun jàng nañ fa war a jànge lijaasa bu nit di am am nañ ko cërub saayet bu nit di am am nañ ko waaye teewul ñu doon ay taalibe loolu moo nu ko dimbalee te loolu wax dëgg yàlla sëriñ bu mat sëriñ rek moo ko mën ba tax na ànd bii ni ànd ak yéen moom ni ma ko waxee rek loolu moo lañ ko fas yéene laltaane maanaam ngor gi ak bañ leen sonal ci dara te lii sëñ bee ci sont ñun ba def ko ci ñun maanaam mu doon capital boo xamante ni ci ngeen di taw tàmbalee fas yéene yóbbu yoon wi fu gën a kawe fu fooxe fi nga xamante ni foofee la ko nit ñi yaakaare ñi ñaan sëriñ bi nu ba mottali suñu yéene ñu yàgg koo ànd ak yéen waaw yàgg koo yàgg koo séq ak yéen jëf bi yëpp ba fu ngeen bëgg mu yegg fa rek ñu yóbbu ko foo suñ door di ñaan mu jox ñu kàttan gi jox ñu wér gi jox ñu fan wi jox ñu jumtukaay yi ndax mënut a ñàkk yoonu murit moom ay jumtukaay mënu cee ñàkk te faw ñaam ko ngir gën a mën a yombalal liggéey bi di santaat bu baax mbokki taalibe yi nga xamante ni ñoom la ma sëriñ bi booleel te mu mel ni ça fait plus d'une xëy nañu bi ñuy tàbbi ci daara ji ay tout tànk la woon waaye seenu ngor seenu sincérité seenu bëgg sëriñ bi tax na ba lu nu sëriñ bi mës a digal ñu ànd kook ñun loolu tax liggéey bi xaw a mel ni lu woyof ci ñun te loolu maa ngi ñaan mu sax maa ngi ñaan yàgg koo ànd yàgg koo jëf yàgg leen fee fekk euh, lépp rafet sëñ Saal dañoo bég ndax màggalu reen gi nii nu ci sëriñ bi dimbalee waaw yokkute gi daf fees sëpp bañ dalee ànd ak sëñ Béthio ba léegi mosunoo jëf màggal màggal ga ci teg ñu jëf loo xamante ni lu ko yées la chaque fois day yokk waaw ba tax na dañoo dem ba xam ne ñun duñ ci leen lépp mooma mbokki taalibe lu ma leen woo balaa maa daaneel ñoom ñëpp ñu ñëw lii Sadio di wax prise de conscience la loolu sëñ bi moo ñu ko dimbalee da ngay woote jëf lu mat plus d'une centaine de personnes balaa ngay soññ sax ñu daal di ñëw indi waaw ba tax na ñun moom wax dëgg yàlla waaw lu nu sant sëriñ bi dese bor dañuy ñaan rek mu yàgg ñu ko jóor yàgg ñoo jox xol bi yàgg koo indi rek yàgg koo ànd ak yéen seen ndam yàlla na gën di yokk ba ci yoonu mu murid yëpp xam ne sëriñ Béthio amul moroom te jëfam moo ne nii waaw ñëpp mën nañ ca teg bët waaw ba tax na ñu ngi sant bu baax du ma ni dama laa da leen indil addiya pour màggal du ma ni fii lañ koy takk ak fii lañ koy am ñun daal bu teyee lu ñu dajale ñu indi jox leen bu ëllëgee ñu ñëwati ginnaaw ëllëg ñu ñëwati ba keroog ñu yegg ñu yegg ci gàmmu ga waaw ba tax na waaw. gëléem dañoo def lu bex mooy ginnaaw bu seen ci màggal ci nag la ñu moom ngeen ci fukki gëléem gëléem yi ñoom ñu ñëw faj bâche bii di gis li muy rëy rëy rafet financement bi lépp waa daara ñi ñëw jërëjëf Thioune à seen jëf bu fekk yéen bu fekk la fierté des Thiamkar waaw dén déggee la CREC la CREC mooy yéen waaw yéen yéen yéen seen becco daa bari la lu baax waaw ah, foo làmb mhm. waaye nag jëf tuur ah, lépp mooma wax yàlla je suis fier d'être en face de vous alhamdulilah yéen jëf tuur ah, ah waaw eggaleel nag loolu képp lañ ci doon sàkku ndax mënuñu cee jëlee mënuñu cee amee lu féete kaw loolu am sa mbégteb sëriñ waaw ab taalibe bu nekk loolu rek lay sàkku waaw ndegam nag firndeel ngeen ko nii ñu ngi santaat bu baax di ñëw di jébbal jëf ji di delluwaat di wutiwaat ngir indiwaat ni xam naan du dakk màggal gi moom fii ba euh, fukki fan gaa gaagee waaw jëf jaa ngi fi ñu ngi jëm la dëgmal tamit gàmm gi waaw te lu nekk dañ ko war a waajal ba tax na dama naan ñi ngi ñëw jébbalee li fi li fi dajalee tey ci àddiya te demaat wutiwaat dellusiwaat ñu weseel jox ko waaw ah, jërëjëf waaw ah. ñaatati la li ñu fi dox boobu deux millions cent la fi mu nekk nii waaw te ci suba si rek lañ ko lijjanti de bi ñuy yeewoo ak léegi daal ba soññi gaa yi ku nekk la nga dencoon say poos nga ñëw indi ko waaw te xam ni am na ñeneen ñuy ñëw yu ñu mënta retiré wester yi ñoo nag ay wéyeef ak yu kenn xamul waaye saa yi ñëwee rek ñu delloo leen ko jërëjëf Thioune dégg nañ lool sëriñ bi sëriñ da da ngeen la nun war na noo jërëjëfe Seex Saaliwo sëriñ la nun war sëriñ Saaliw jërëjëf yow mi nu may may ku ne yaa doy borom sëriñ Saaliw jërëjëf yow mi nu may may ku ne yaa doy borom ay nga layin xaacu way le ma Seex sëriñ Saaliw ku fi ma sa la mu yoroon yaa ko ko jox sang jërëjëf Cheikh Saliou jërëjëf Cheikh Saliou jërëjëf nu may ku ne yaa doy borom bilaay moo jara àndal Serigne Sall ndigal yaa jara àndal Serigne Sall lanu àndal Serigne Sall lanu àndal Serigne Sall ndigal yaa jara àndal Serigne Sall ndigal yaa jara àndal a Serigne Sall lanu àndal a Serigne Sall lanu àndal Serigne Sall ndigal yaa jara àndal université ñun ki nu àndal université ñun ki nu àndal université ñun ki nu àndal Serigne Sall ndigal yaa jara àndal Serigne Sall ndigal yaa jara àndal université ñun ki nu àndal université ñun ki nu àndal Serigne Sall la nu àndal a Serigne Sall lanu àndal Serigne Sall ndigal yaa jara àndal yaa am ndigal yaa jara àndal yaa am ndigal yaa jara àndal université ñun ki nu àndal Serigne Sall ndigal moo awuleen mu riir ñun ki nu àndal awuleen mu ñun ki nu àndal sëriñ Sall yaa jara àndal a sëriñ